di liggéey di liggéey di liggéey ba am vingt ba am quinze millions tabax sama kër di préparé ne fii ak un mois ma dem tuxus ji fa ba bëri ni ma waa xëy xëy rek ñu woo ne ma dañuy daj lii daaneel sama kër ci sama kanam ba ma dalee liggéey ba léegi lu am si laa ko def taluma lekk taluma naan yere bu baax sax dama ko sol suma romé nit ñi di jaay ñu ne dafa dof fekk dofuma damay dajalee samay njaboot ñu jël sama alal yak ko ci zéro jeewa ni barki dem moo ma jaay sima ak sur ak seet plus de 1 million 200 facture baa ngi nee mom waaw